jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen daan ànd ak ñun sans limite TV wato site d'information ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax ziaramaat mbégte lool àndaat ak yéen jamono yi ñu àddoo ngeen ñuy dégg kii di njiitu réew mi leen di président Bassirou Diomaye Diakhar fay yegg na ca diwaanu euh, Touba dëkk bu sell bile ma nga ànd ak nag ki nga xam ne moom mooy El Malick Ndiaye nekk ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu infrastructure ak ki nga xam ne moom mooy honorable député Cheikh Thioro Mbacké moom président bile ba mu nag ki ko teeru du kenn ku dul euh, porte parole bile di Serigne Bass Abdoul Khadir Mbacké moo ko daal di teeru ak njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp moom président Bassirou Diomaye Diakhar fay Euh, génnam bu njëkk mu daal di ko amal tey jilee utali foofee nga xam ne moom mooy ca diwaanu Touba dëkk bu sell bilee visite à Touba arrivé à l'instant du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans la résidence du Khalife général des Mourides 6 à Darou Minam il est actuellement reçu par Serigne Mountakha Bassir pour l'heure li nga xam ne nag moom mooy dispositif sécurité bi la euh, sécurité bi dañ ko daal di euh, yokk foofee euh, nga xam ne moom mooy ca diwaanu Touba ce président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jamono ñaar ngeen ñu dégg. ma nga foofee nga xam ne moom moo ca diwaanu Touba ngir gisee ci tam ki nga xam ne moom mooy xalifa bi lee di mun tax Bassir bépp information bu bàyyeekoo foofee ca Touba incha rab bi danañu ko ànd ak yéen fii ci Sans Limites TV votre site d'information.

waxal li nga bëgg de moo fi sëñ Touba waxal li nga bëgg boo dee moo fi sëñ Touba yal